Pathé mu nekk secretaire général ci liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk ci caisse de sécurité sociale ci seen fukkeelu congrès ak ñett bi Mahmoud Niang moom fësal na ñaari mbir yoo nga xam ne daal moo ko ëppal solo benn bi dafa delluwaat ci ñu gën a càmbaraat accord d'établissement bi nga xam ne moo delluwaat ci ay ndàmpaay ak i prime ngir liggéeykat yi. accord d'établissement mooy lu tënk liggéeykat bi ak euh, employeur bi ci kër gi mooy wax salaire mooy wax carrière yi. mooy wax catégorie yëpp accord boobu ñu ngi ko gëj a révisé en 2006 ñun nag yoon bi lu ñu bëgg suñu mandat bi moo ñu révisé ko. leen loo xam ne tamit yëkkati na ko mooy ay terrain ndax gis ni kat nit moom mën a am foo xam ne dina fa mën a dugg ak njabootam loole wàllum sécurité la maanaam kaaraange ca moom. gouvernement bi moo lancé cent mille logements pour accompagner les travailleurs kon caisse nag bu ñu nekkee ne caisse de sécurité sociale war nañu def de telle sorte que. liggéeykat yu fi nekk nekk ay xale moyenne d'âge bi nekk fanweeri at ñu jàppale leen pour ñu am ay terrain. bu delluwaatee nag ci li nga xam ne mooy xew ci diggante liggéeykat yi ak ñenn ci ay responsable ci caisse de sécurité sociale bii nemmeeku nañ ne am na ñoo xam ne kat dañ leen a dàqoon na waaye njugawaat moom nee na bu fekkee ne kat loolee am na kon nag ñaari wàll yi foog ñu seq waxtaan ngir ñu mën a am saafara. am na situation bu am am na différence sax bu am diggante l'employeur qui nañu ubbi waxtaan pour seet nan lañ koy solutionné si dialogue je pense que dossier bi bi commencé bëgg yàgg sax ñun daal nous sommes ouverts et SG peut-être dina si dox ay jéego pour ñu wut solution pour régler problème boobu de manière définitive. congrès bi nga xam ne ki daal di jiite mooy Mody Guiro di secrétaire général bu confédération national euh, di liggéeykat yi Sénégal ci ndeyteef bi nga xam ne ca daal di jokk moom ma ngay sàkku ci képp kuy liggéeykat nga dugal sa loxo ngir entreprise bi mën a jëm ca kanam.